lii yàlla na yàgg lii de moom bu ngeen ci saxee mbooleem góor ñi nekk ci kaw souf ma cee gëna bëgg mu nekkoon ab artiste complet à l'une, Diagne Golbert nekkoon na acteur principal ci théâtre yu bari yu groupe bariego bu Saint-Louis पता लगी माँ कहाँ से लगी कौन से पता xarañam ak ay feemam doon na reeloo ñu bëree bëri Golbert Diagne nekkoon tam journaliste ci RTS bu Saint-Louis moo mu jëwoon ubbi ab rajo privé Teranga FM mu faatu ci aljuma ji ginnaaw mu amoon juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett ci kàdduk maire bu Saint-Louis Mansour Faye di wax ni Golbert Diagne ñëpp ko bëggoon Mansour ne tey jëlee nag ñàkk na ab parrain tey jii nag Golbert Diagne fekk dina ay naataangoom yi ci mel ni Mame Sey Diop Mansour Seck it kii di Serigne Fall. jàkkaarloog sama sëriñ. mu yéen. billaahi. rus naa def yaram mu neen sama kanamu sëriñ. yow sa sëriñ bëgg dem loolu ngente sa sëriñ boobu nga xam bëgg dem loolu ngente. waaye muy sama sëriñ. bu dee sa sëriñ nag. man maa ngi jomme dama ñëw nag pour wax lu mu mujj ci jëf. tey jii lay jeex nag. ñuy ñaan yal na suuf sedd seeni kaw.